salaamaaleykum mbokki As-Samadiyya maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di bala aq ñëpp di bala ñëpp di leen dokkeel ci bisu zikrullahi bi di leen baax it xasida gii nga xam ne sëriñ bi dagoo tënki la ilaha illa allah te tey di bisum ndigal boo xam ne da ko jaarale ci Baay Faal ñuy tudd yàlla waaye murid yëpp ko war a def ndax sëriñ bi bu joxee ndigal Baay Faal yi rek mooy jox na ndigal murid yëpp kon nag kenn ku ne nga ne war ngay tudd yàlla di bàkk yàlla di yàlla di xel màggam gi di ko teewlu xam ne moo bind lépp lépp ci moom lañ jógee ci moom la ñuy loolu mooy maanaam laa ilaha illa benn buur amut bu yeeyoo nguur ga te nguur ga di dëgg ku dul kon nag ndegam sëñ bi di ko tënk ci laa ilaha illallah xasida gi nañ boole di tudd laa ilaha illallah ak di jàng xasida gii mu ko tënkee loolu moo tax ma baaxee ko waa sama samadiyya ak bépp mu bu ci bëgg a jëriñu jërë ngeen